allahumma la sahla illa ma jacaltahu sahla wa anta tajcalu alxadana ida shita sahla allahumma axrusna bicaynika allati la tanaam waxfadna biruknika alladi la yuraam warxamna biqudratika calayna wala tuhlikna wa anta raja a delsiwaat nañ ci min naba'il mursalin wara ñëw tey ci qissatu asxaabul fiil wa ma adraka ma asxaabul fiil bu ñu waxee asxaabul fil muy abrahatul ashram ak bëgg bi mu bëggoon a toj kaaba gi loolu mi ngi am avant yonent bi di juddu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam diggante xaadisatul fiil ak mawlidun nabi sallallahu alayhi wa sallam juróom fukki fan moo ci dox weer ak ñaar fukki fan xulaasatu hadihi alqissa bu ñu doon tënk histoire beeg xew-xew bi mooy abrahatul xabashi moo nekkoon vice président najashi ci Éthiopie moom abraha ñu ngi ko délégué woon mu féete yaman najaasi nekk éthiopie abraha général de guerre la woon moo doon dirigé minteer yi ak xeexkat yi dem na ba dooleem bari nit ñi déggal ko mu mel ni moom moo topp ci borom dëkk bi Abraha gis na nit ñi di dem Màkka at mu nekk di ziyaare Kaaba gi di ko wër ngir ne yonent yàlla Ibrahim moo ko tabax arab yi di fa dem ci jamonoy jaahiliya di ko wër di ko ziyaara abraha fiir ci li arab yi di dem màkka di ziyaare kaaba gi ñu nekk ñu bari abraham mu ne comme moom chrétien la moom am na diine ñoom am nañu diine loolu moo tax boo seetloo waa Éthiopie ak Égypte ñoom ñooy chrétiens yi gën a diir ndax ñoom dañoo jàpp ni cosaan bi ñoom la bi Abraha gisee loolu moom it dem tabax mu laaj lan moo xew ñu ne ko ñii day dañuy dem Màkka di fa wër benn néeg di ko ziyaara Abraha ni man maa ci gën a yey ndax maay buur fii ci Yaman kon danaa fi tabax église bi mu tabaxee benn église walla mu tabax benn bërëb bëgg nit ñi di fa ñëw di ko ziyaara bi mu ko defee mu bëgg a dox diggante kaaba gi ak ñi fay ñëw pour mu contourner leen ngir ñu ñëw ci néegam boobu mu tabax siiwal ko yëkkati loolu am na ci arab yi xeet yoo xam ne ñu dëgër fit lañ du ñu soppiku mukk ak lu àdduna soppiku soppiku lu àdduna yàqu-yàqu ñoom dunu soppiku yu ñu defee loolu benn arab ci ñu nekkoon ci bani kinaana mu bàyyi ba guddi mu dugg ci bërëb boobu abraha tabaxoon daal fay kabine bi mu fa cabinet ba pare jël kabine yi bind ko fa ne Abraha yow lii nga yeyoo néeg bi yeyoo ñu ziyaare ko ma nga Màkka bi nit ñi xëyee ku dugg rekk fatt sa bakkan génnaat coow li jóg àgg ci Abraha ñu ne ko ah sa bërëb bu jaamukaay ba nga defaroon day am na ku fa kabine bind fa ne lii nga yeyoo waaye kaaba gi du moroomu lii abraha ne ko kan moo ko def ñu ne ko lii moom arab moo koy war a def ndax ñoom rekk ñoo bañ lii nga def abraha <clears throat> ne comme arab yi ñoo def loolu danaa takk sama armee dem màkka ngir daaneel kaaba gi abraham lool waat ne dana màbb kaaba gi mu digal waa Éthiopie ak waa lenn ci yaman ñu waaj mu ànd ak ñoom ngir dem daaneel kaaba gi dajale ay junniy junniy soldat génne ay ñayam arab musul xam xeexu ñay waaye ñay ñen ñoo ko xam mooy lenn ci asiatique yi sori yi mooy nit ñu zone ñi mel ni faylande yi ak ñu deme noonu ñooñu dañuy yar ñay comme ñun ni ñuy yare nag dañuy tàggat ñay di ko bayloo di ko defloo lépp léegi nag Abraha daa dinay génn ak ay soldaaram ak général de guerre yi mu àndal ne leen ñu dem ngir màbb kaaba gi bi mu génnee ba jege yaman am na benn waay bu génn bu ñu naan zu nafar zu nafar woo waa dëkkam fi abraha nara jaar ne bu ñu bàyyi abraha ji dem nañu xeex ak moom bi ñu xeexee ak abraha abraham moo leen ëpp doole duma leen rey ca ñi ëpp daa di jàpp zu nafar bi mu ko jàppee def ko prisonnier de guerre bëgg koo rey zu nafar ne ko ayyuhal malik laa taqtul nii fa innahu asa an yakuna baqaa'i maaka xayran laka min qatli ne ko yow buur bul ma rey bàyyi ma ma ànd ak yow aman na danaa la jëriñ bis abraha nag li muy doy waar ku lewetoon la mu bàyyi ko waaye ñu mënote ko muy ànd ak ñoom abraha jëm yoonu màkka waaye xamul yoon bi bi ñu ñëwee ba dëkk buñ naan xusa am xusa amit am na ku fa génn nekk xeexkat dajale waa dëkk bi ñu ko naan Nufayl ibnu Habib al-Xusami Nufayl ibnu Habib alxusaami moom it génn ak waa dëkkam ne dañuy koj ab ngir xeex ak moom moom ak ñaari giir yi mu àndal muy Shahraan ak Naahish bi ñu ñëwee xeex ak Abraha Abraha duma leen rey ñi ëpp jàpp ki ñuy wax Nufayl ibn Habib al-Xusami moom it mu nar koo rey Nufayl tamit wax ko comme la waxoon ne ko ayyuhal malik laa taqtulni fa inni daliluka bi ardil arab ne ko buur jarul nga may rey boo ma reyee doo dem màkka ndax man maa xam yoon bi kon da may bàyyi ma nekk sa prisonnier de guerre waaye tegtal leen yoon bi loolu la arab di woowee xafiir abraha gaa yi ne ko wax na dëgg bàyyi ko bàyyi ko ndax xamuñu yoon bi comme moo fa xam bu yeboo ñu bàyyi ko kon moom nekkam xafiir moo dindi ak deewam bi mu ko defee ñenn ci waa xeetam di shahraan ak naahis ànd ak moom ñuy tegtal abrahata yoon wi bi ñu demee ba taif nga xam ni soreetuñu màkka taif tamit am na ku fa dëkk ku ñuy wooyee mas'ud ibn mut'ib mas'ud ibn mut'id moomu mu génn mook banu saqif ñu ne dañuy contrecarrer abraha comme na ñaar ñene defoon abraha xeex ak ñoom daa leen rey moom it jàpp mas'ud ibn mut'ib moom it waa taif ak mas'ud ibnu ishaq nee na dañoo wax abraha ne ko ayyuhal malik innama nahnu abiduk saamicuuna laka mutiicuun laysa indana laka xilaaf wa laysa baynana wa bayna hada al bayt alladi ne ko yow abraha ñun nangu nañ ànd ak yow ndax yaa nu ëpp doole yaa nu mën abraham musul xeex xeex te gañewu ko ndax li muy àndal di xeexee loolu arab yi xamuñu ko ñay doo ko war comme ni ngay waree gëléem doo ko war comme ni ngay waree nag walla fas walla mbaam ñay dafa am xaasiya bu ñu koy war dañuy ràbb kees gu mag goo xam ne lu ëpp juróomi nit ba fukki nit xaj nañ ci suñu ko ràbbee xew daj lañ koy wax ñu takkal ko ñay bi ñay bi yenu ko bu ko yenoo nit ñi yéeg ci mel ni ñu nekk ci seen néeg duñu ñu toog waaye dañuy taxaw yore seeni arme kon benn ñay bu nekk mën naa yóbbu fukki soldaa te ñi nekk ci biir néeg biñ ci ràbb boo ko jamee mën naa bañ a dugg boo fettee mën naa bañ a dugg li nga mën ci rey mooy rey ña fa nekk ci baat yeeg yu demee noonu loolu moo tax arab amut loolu xamu ko xamuñu nu ñuy reyee ñay xamuñu nu ñuy xeexeeg boroom ñay moo tax abraha dëkk bu mu romb bu xeexeeg ñoom gañe leen ñee nag daldi nangu dégg topp ne ko ñun danañu ànd ak yow li nga bëgg dinañ la ko defal comme nag danga bëgg a dem màkka dinañ la jàppale ci yoon wi dimbalee la suñu doole ngir nga mën a dem nga daaneel kaaba gi waa xeet woowu lan lañu def ñu jël kenn ci ñoom ku ñuy woowee abu rigal la moom lañu jël ne ko yaa gën a miin yoon bi tegtalal gaa yi yoon bi gunge leen ba ñu àgg màkka bi ñu ñëwee ba bërëb bi ñuy wax mu xammis foofu nag fa la abu rihaal dee woon ndax jotoon nañ ko gaañ ci xeex bi bi ñu ñëwee ba mu xammis abu rihal daadi di dee foofu ba mu dee foofu nag moo tax arab yi mere ko moom abu raxal moom rek mooy bàmmeel boo xam ni arab yi dañ fay taxaw di ko raj ma xam ngeen raj ma mooy dañuy taxaw ci bàmmeel bi jël xeer di ko duur ci bàmmeel bi ndax dañoo jàpp ne kii dafa trahir nation bi dafa wor xeetu arab arab yi mujj bu ñu ñëwee ba ci bàmmeelam dañuy jël ay xeer di ko raj ma ngir naqarlu lu bon li mu defoon ànd ak abraha ngir nar koo yóbbu ba màkk ngir tegtal ko loolu jëfi baadoolo la ndax lu toll ni kaaba gi di seen teraanga ñoom mu dëkk fa bëgg leen tegtal ba foofu loolu warkat moo koy def moom la tubaab yi di daal di tuddee koo xam ni dafa wor workat nag moom bu ñu ko jàppee ab triant dañ ko ko woowee dañ koy rey bi mu ko defee Abraha jël yoon bi dem bi mu demee ba àgg Màkka yoon wi ñi mu xeexal ñépp nangu na seen alal nangu seen am-am alal ju bari Abraha daal di koy yore ci ay gëléem ay fas ay nag ay jaam yu góor ak jaam yu jigéen bi mu ñëwee ba bërëb biñ naan tihaama nga xam ni mooy dugg nga biir màkka tihaama bokk na ci daluwaa quraysh foofu nag am na àll bu naat boo xam ne dañu fay sàmm gëléem yi abdul muttalib du xam ngeen ko mooy kan ah mooy maamu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax abdul mutalib moo jur abdallah abdallah jur muhammad sallallahu alayhi wa sallam abdul mutalib mooy sangu quraysh mooy meeru quraysh am ñaari téeméeri gëléem yu ñuy sàmm ci àll bi ab jël yépp boole ko ci alalam bi ñu ko defee gaa yi yëg loolu Abdul Muttalib yëg ko bi mu ko yëgee Abdul Muttalib góor gu rafet la woon yàlla da koo may taar muy ku jekk sikkim bi jekk mu njool bi mu ko defee gaa yi yëg banu kinaana ak husayl yëg ni abraha jël na alalu abdul muttalib banu kinaana ak husayl ñoom it ñu takk seen arme ne dañuy xeex ak abraha bi mu ko defee abdul muttalib ne leen déedéet mënu leen xeex ak abraha ndax moo leen ëpp doole mi ngi mel ni rek waa Sénégal ngemb ne dañuy xeex ak États-Unis bu ko defee benn mag ne leen loolu xaru la ndax États-Unis leen ëpp doole seen góor day jeex seen jigéen jeex dëkk bi faag kon Abdul Muttalib boo nekkee njiit dangay am xel léeg-léeg bañ a dugg ci xeex même di ñeme am doole sax bañ a xeex ndax xeex baaxul soo gañee danga ñàkk buñ la gañee danga nga ñàkk Abraha bi mu jëlee gëléem yooyu nag yu Abdul Muttalib waaye xelam dalul Abraha jël kenn ci ñi mu àndal muy xinaatal ximyari yónni ko ci màkka ne ko boo demee ba màkka fa kaaba gi nekk laajteel kan mooy borom dëkk bi bu ñu la ko wanee ne ko man abrahama la yónni ñëwuma ngir xeex ak yéen waaye dama ñëw ngir màbb kaaba gi bëgguma xeex ak yéen waaye li ma yëkkati mooy màbb kaaba gi man ñaar yooyu xaw ma bu ci tane bëgguma xeex ak yéen waaye seen teraanga laa bëgg a toj muy xanaa ma def leen jàmm mu ne ko su fekkee ni wax nga leen loolu ñu d'accord xeexuñu ne la duñu xeex kon àndal ak seen njiit nga indi ko mu ñëw fii ma waxtaan ak moom ah nuru na ni ku bëgg jàmm la bi xinaata ñëwee làcce ana kan mooy kilifa dëkk bi ñu ne ko abdul muttalib ibn hashim moom mooy borom dëkk bi ñu woo abdul muttalib mu ñëw nekk góor gu rafet masha allah njool jekk lool bi mu ñëwee xinaata wax ko li ko abrahata yónni ne ko ñëwuma pour xeex ñëwuma pour tuur deret ñëwuma pour yàq li ma indi mooy ngeen seetaan ma ma màbb seen teraanga bii di kaaba gi bi mu ko waxee loolu Abdul Muttalib ne ko waaw ana ki la yónni mu ne ko ma nga ca montagne ne ca suufu montagne fa la kampe arab dañ doon wax ni dëkk booy xeex ak moom doo ko bett boo ñëwee ba jege dëkk ba dangay ngay campe yónnee bu ñu ñemee ñu face à face suñu ñemewul daw bu ñu ñemee xeex nga duma leen wala ñu duma la bi mu ko defee abdul muttalib daldi di ànd ak xinaatal ximyar yi ñëw ci abraha bi ko abraha séenée rek dafa jóg ndax góor gu jekkee noonu kaalawu rafet njool ca kaw foo ko xoolee xoolaat ko am na lu xelu abraha laal mooy ku mel nii sang dëgg la sang kenn du xeex ak moom laalla yonent bi tax na yàlla defal xeet woowu teraanga loolu ci teraanga yi la bokk bi mu ko defee xinaate ñëw ak abdul muttalib abraha jóg dalal ko ci biir xaymaam te daawu fi dalal kenn abdul muttalib ñëw abraha jóg téye loxoom lëng ko toog ak moom ci suuf lu kenn mësul gis abraha ni xinaata dellool bu kenn gis lii ndax lii ak suufe lay nuru bi mu ko defee abraha ni abdul muttalib wallahi ma nuridu xarbuk ne ko bëgguñu xeex ak yow ak sa njaboot bëgguñu ngeen baare ci li ñu bëgg a def mooy dañoo ñëw ngir bëgg a toj kaaba gi abdul muttalib tontu abraha ne ko wallahi maa lana bi dalika min taaqa même ñun bu ñu bëggoon xeex ak yow amuñu capacité bi amuñu doole bi kon mënuñu xeex ak yow lakin hada al bayt baytullahi alxaram wa baytu xalilihi ibrahim ne ko néeg bi nga bëgg ni di ko toj néegu yàlla la de baytullah alxaram yàllaa ko moom de kan moo ko tabax nabiyullahi إبراهيم فوالله ما عندنا دفع عنه yàlla xam na ne mënuñu koo défendre waaye li biir mooy néeg bii am na borom borom mën na koo aaral boppam yaa ngoog néeg baa ngoog waaye man lenn sama bir mu ne ko lan mu ne ko sama ñaari téeméeri gëléem nga jàpp delloo ma ko abraha jóg ne ko yow ma bëgg a toj seen kaaba xeexoo ngay wax mu ne ko eh inna lil bayti rabban sawfa mii néeg bii am na borom su boroom seetaanee nga toj ko ah, boroom moo xam am na boroom kenn ku nekk li nga moom ngay aar man gëléem yi laa moom delloo ma samay gëléem abraha daa di koy jox ay gëléemam abdul muttalib génn waaye abraha dese tiit ndax abdul muttalib waxul ak moom benn <laughs> yoon ci waxu ragal da ko wan ni man jàmbaar laa donte yaa ma ëpp doole duma ma taxaw yow di rey sama yaram di jooy di toroxlu man li ma moom li ma concerné laa bëgg a jël jox ma ko yaa kaaba gi mi ngi nee demal inna lil soo rabban sawfa yaxmi waaw ah jox ko ba pare nag daa di xaw a tiit abdul muttalib génn màng ay gëléemam ñëw ba ci waa màkka ne leen yéen waa màkk yéen sama xeet sama askan yéeg leen ci montagne yi làqu di leen fu waay mën a làqu na làqu ba duñ leen jot ñay mën na xeex waaye ñay du yéeg gis nga ko moom it xel mi mu am ñay mën na xeex waaye du yéeg kon yéen yéeg leen ci montagne yi ñépp yéeg góor ñaak jigéen ña mag ña ndaw ña bi ñu ko defee bi ñu yéegee abdul muttalib dem làq ay gëléemam ñu yéeg ci kaw xale yi di mer naan nañu xeex nangam nangam mu ne leen ay xale ngeen bàyyi leen loolu seetaan leen ko moom ak kaaba gi boroom kaaba gi am na fulla dana fayul boppam ah loolu nag bi mu amee abraha xëy bi mu xëyee ne armeem nañu préparé nañu armewu wu génn nag ngir war a jublu ci kaaba gi bi ñu génnee yoor yoor ne dañuy toj kaaba gi bi mu ko defee abdul mutalib ñëw ba ci xalqatul kaaba mooy ci côté bunt bi téye ci morso kaaba gi xaw a dajale morso bi poñe ko bi mu poñee morso bi ndeysaan taxaw lu yàgg xolam metti mu am naqar daa di wax ne laahumma inna al abda yamnau rahlahu famna xilaalak laa yaglibana salibahum wa maxaalahum gadan muxaalik in kunta taarikahum wa qiblatana fa amrun ma badalak abdul muttalib téye ci saxaful kaaba daa di sadd ay way yu daw yaram ne lahumma inna al abda yamnau rahlahu famna xilaalak ne yàlla sa jaam bii nga moom fexe na ba téye li moom mooy ay gëlee kenn defu ko dara kon nag sa néeg bii nga moom sa alal bii yow yàlla téel ko sa bopp allahu akbar ne ko laa yaxlibanna salibahum wa maxaaluhum gadaw maxaalik ne ko xëy nañ de ngir seen kurwaa bi ëpp doole sa kaaba gi xanaa yow yàlla loolu doo ko nangu loolu lu war a jomb lay doon ne ko in kunta taarikahum wa qiblatana fa amrun ma badalak soo leen bàyyee ak suñu xibla bi ñu def lu leen neex yàq ah loolu yow yaa xam man pare naa dem daa daa di dem dëkk bi ñépp yëg nañ Abdul Muttalib di dox ndànk Abraham ngi ci yoon di ñëw ñii naan ko dawal waaxutil balaa ñoo egsi Abdul Muttalib ne du ma tee dox na ma daan doxe noonu lay doxe allahu akbar jàmbar la ndax sët sëtam jàmbaar la Ibn Ishaq ne abdul muttalib bi mu saddee way yooyu jooy na nag rangooñam tuuru abraha jëm ci kaaba gi ñay bi gën a mag mën nga ne bii généralu ñay yi mi ngi tuddoon mahmuud te ki nar a judd fii muhammad la tudd loolu kon mbir la ñay bi gën a mag nga xam ni bu jógee ñay yi jóg bu toogee ñay yi toog ñay boobu mooy mahmud abraha ci la yéeg léegi nag nufayl ibn habib moom moo war a wommatal abraha ñay bi ndax moo mën a wax ak ñay ñay di dem ah mbir am na nufayl bàyyi ba abraha préparé ba yéeg nu fay la téye ci nopp ndeyjooru ñay wi daa di wax ak ñay ne ko ubruk mahmudan awir ji rachidan min xaytu jiti fa innaki min baladillaahi alxaram ne ko bu la neexee nga toog bu la neexee nga dem fi nga jëm <laughs> néegu yàlla la de ñay lay waxal ndeke wax ji dugg na ñay bi <laughs> ne ko bu la neexee nga toog bul dem bu la neexee nga dem ci néegu yàlla nga jëm te ma du mooy yàlla loolu luñ ci war a déggee mooy ñay bi buñ ko waxoon nit nu muy def moo tax yàlla tuddee ñu saqalaan suñu bopp yi daa dëgër suñu xel day xalaat kon nu fay la la mu waxoon abraha ne ko yóbbaale ma bañ maara yi mën naa laa jëriñ dëgg la jëriñ na ko ndax dafa buggoon a créer problème comme munta xeex ak moom mu xeex ak moom ci pexe ah bi mu waxee loolu ñay bi ñay bi dégg ndigam ndigal fa innaki min baladillahi alxaram daa di bàyyi ñay wi ñay wi ne gurub sukk nangootul dem abraha waaw lii lan la bu ko defee nu fay lu nekk fa di ko dóor jógal jógal jox kaaba gi ginnaaw dóor nañu ba sonn ut nañu weñ dugal ci nopp yi dugal ci gémmiñ bi jam lu ne mu bañ su ko nu fay la wëlbatee xirtim bi jëmale ko sharq mu jóg ànd ak moom dem su ko jëmalee xarb mu jóg ànd ak moom dem su ko jëmalee te kaaba gi mu sukk ne demuma waaw ah mbir ma nag xam nga lu ne lañu ñu mën a dóor jubbanti ko ba mu def ñay jéem nañu pexe bu ne mbir mi sottiwul dem nañu ba gaañ ñay bi waaye ñay bi daal moom du jubloo kaaba gi xalaatu ko lan moo tax li na baytullahi alxaram kaaba gi ku ko jublu da nga koo war a aj jaamu fa yàlla waaye jublu fa ngir yàq loolu loolu baax yi may nanguwuñ ko nit nag moo ko nangu bokk na ci benn mbir mu doy dina am mujjug jamono am na ab éthiopien boo xam ni Éthiopie lay jóge tànk yi day gudd lool dana ñëw ba Makka jël martom ak brem di dàjj kaaba gi muul par muul ñépp taxaw di ko seetaan ñu ne la àll sëriñu abrahata la yéene maamam la nar def bokk xanaa loolu ci mujjug jamono lay am borom xam-xam ñu ne lan moo tax bu loolu di am yàlla du défendre kaaba gi ñu ne déet yàlla du ko défendre jullit ñi dañoo nekk ay milliards yi jullit di seetaan ñuy màpp kaaba gi bu ñu ko seetaanee yàlla seetaan keroog ba yàlla di xeexal kaaba gi jullit amul woon jullit amu fa woon bi jullit ñi taxawee mën a seetaan yow nangu woo seetaan ñu toj sa kër nangu woo seetaan ñu rey sa dara nga défendre sa dara ngay xool ñuy màbb kaaga nga naan <laughs> eh, waaye gars yi war ngeen wax de ku nekk naan sa morom waral wax yàlla daf ñuy seetaan kon ci màndarga yi la bokk foofee la waxu Abdul Muttalib tàmbalee ñëw lan la waxoon Abraha inna lil bayti rabban sawfa yahmi <laughs> ne ko néeg bi am na borom dana ko aar abraha fàttaliku la ko abdul muttalib waxoon mu ne gaay waaye jubbanti leen waay ñu jubbanti jubbanti mahmud bañ wëlbati kanam gi rek ne nii suñu téye géem bi bopp bi wëlbati wëlbati mu ne nii ginnaaw moom dal duma jàkkaarloo kaaba gi di dimbale kenn mu koy toj ah pexe amul foofe nag waa màkk ñoom ñoo nga ca kaw montagne yi yéemu di seetaan sama boroom nag war a ñëw pour aar kaabaam te pourtant mi ngi koy aar ndax ilham na ñay bi ba ñay bi ñëwul ngir màbb kaaba gi su ko neexoon noonu rek lay bàyyi ñay bi bu demul beneen du dem te ëpp ñu ñay yi doole te bu ñu wàccee dox xeex mën naa métti yàlla yebal tayran aba biil picc yooyu benn bu ci nekk dafa ŋàbb ñetti gemberaay ay xeer la yu toll ni comme ñebbe xeer yooyu picc bi day màtt benn tànk bi téye benn tànku ndeyjoor bi téye benn ñu naaw ñu ne picc yi fu ñu jógee jahannam am na ñu wax loolu waaye daal xeer yi mi ngi tolloo ko li ñuy woowee alximas xeer yooyu nag bi picc yi nag naaw bi ñu naawee nag ba fekk armée bi fi ñu nekk nag di leen sànni xeer yi xeer bu ci laal kenn ci armée Abraha da ngay dee sa biir day daw ngay kabine ba dee maanaam biir bi dootul tëju bu la laalee rek biir bi day ubbeeku ngay ratatati rekk ba banku sedd guy su fekkee deewoo dangay ngay ànd ak feebari góom di wokkatu ba dee picc yi nag commencé vëf di naaw di leen ko sànni tarmihim bi hijaaratin min sijjiil borom bi ne ñu ngi jëlee ay xeer yoo xam ne jahannama lañ ko jëlee tarmihim bi hijaratin min sijjil fa jaalahum ka asfin yàlla ne bu leen xeer yi dalee dañuy mokk comme sunguf bu ñuy mooñ ni muy mel ka asfin maakul asf nag ci arab olof ngëndal la koy wax ngëndël moom xam naa ne saa si xamu leen ko yéen yow moom xamoo ngëndal ngëndël xam nga ko olof mooy wax ngëndal garab la boo xamante ni Euh, dafa am lu mel ni poudre ay kawar lay genre nuru comme poudre côté xombal am na fa ni muy mokkee ku mu laal noonu lay mel borom bi nag subhanahu wa taala yebal loolu bi mu yabalee loolu abraha nag ne nañu wooy Nufayl ibn Habib mu tegtal ñu yoon bi ñu daw lii kenn xamu ko ñun kenn mësuñoo gañe ah bi ñu dawee nag wax Nufayl loolu nu fay ne leen ayna al mafar wal ilaahu taalibu wal ashrabu al maghlubu laysa al ghaalibu ayna al mafar wal ilaahu fan laa daw jëm yàlla ku muy wër foo làqatu fooy jëm du abraham moo doon jaay doole tey not nañ ko amul benn pexe ni ñuy génnee di dem soldaaru abraha yi noonu la ñuy deewee par benn ci yoon bi di wadd di dee di wadd di dee ba makka daadi di set loolu la borom bi wax ñu ci suuratul fiil baada audu billah min alsheytaan arrajim بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل yàlla di wax ak waa Quraysh ndax fekke woon nañ ko seeni maam fekke woon nañu lii yàlla def lu mel nii ñi ngeen gënoon a ragal nan la leen yàlla def kayfa faala rabbuka bi ashaabil fiil yéen arab mosu a xam xeex ak ñay xamu leen nu ñuy xeexee ak ñay ngeen jaaxle yéeg ca kaw montagne ya alam yajal kaydahum fi tadlil abraha doole ba mu amoon ak lépp yàlla lem na ko sànni wa arsala alayhim tayran ababil daa di yabal ci ñoom ay njanaaw yoo xamante ni yu doy waar la tarmihim bi hijaaratin min sijjiil di leen sànni ay xeer yu bàyyikoo ko sijjiil borom bi ne fa jaalahum xeer yooyu def leen ka asfin maakul comme sungufu ngëndal bu ñuy lekk kon loolu mbokk yi mooy diggante abraha ak toj kaabatul musharrafa histoire boobu nag bis bi mu amee ba bi yonent bi di juddu juróom fukki at la moo tax am na kenn ci suñu mag ñu ko ko wax bi aamil fiili yawman baada nuuni kooku Cheikh El Hadj Malick moom moo ko wax ci téeréem biñ naan nuuni ya bi aamil fiili yawman baada nuun nee na juddu yonent bi ak at bi ñay bi doon ñëw ngir toj kaaba gi cinquante jours moo fi dox muy weer ak ñaar fukki fan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doog a juddu kon loolu mooy xaadisatul fiil ñoo ngi ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu defal ñu nasru ku yusru dégg ak topp ràññ ak xàmme wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbi ajmain salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu